waaw euh, comme analyse bi nga def rek xam nga xaalis dafa garaw bon ils ont dit que ne dugal na trois cent mais du trois cent millions rek c'est cinq cent millions parce que dafa am benn benn benn somme buñ détaillé que ne les trois cent millions daf ko dugal ci kees gi nga xam ne moom la mét na par pour teg ko compte boobu pour affaire yi mbiram dëkk bi trois cent millions mais imam Cheikh mom jox 30 millions may si ce porte-parole ñu jox 20 millions papa may ils ont donné 20 millions may nañ ko tamit auto donc euh baba lamine jox 30 millions xam nga euh, ñom sax niñ ko sédélé sax euh, papa may mom ak baba waaw donc peut-être 20 millions yi ko jox auto bi ko ci parce qu'ils ont dit président comme euh, pourtant nous avons fait déclaration ce qu'il a fait à Touba il deux milliards la Touba euh, a 1 milliard pour la Le premier ministre la Yonéon. premier ministre jim mais les les les milliards 1 milliard bi mooy pour xalifa bi 500 millions moo nekk pour le porte parole ba sëñ sëñ Bass Abdou Khadir Bass Abdou Khadir gars yi dañoo bëggoon sax mu ñëw Touba ànd ak ñoom fekk leen fa boobu mi ngi Dakar mais dafa lànk ba tëdd ci naaj bi te terewut dañ ko yóbbu cinq cent millions daf na daf ne daf ne daf ne ñii ne leen ñi dañ maa yàpp man maay dem Touba pour ñu ànd ak ñoom ci sëriñ bi moom na dem yoon wi kënu xam te terewul ñu jox ko 500 millions mu toog Dakar tëdd la xalif jox nañ ko 1 milliard mu def mu def déclaration ñaata la jox la xalif général Medina Baye on a dit ñu ñii ne 40 millions ñu ne 30 millions ñii ne 50 millions te ñun sëriñ bi suñ papa am na benn benn benn benn benn honneur bi boo xam ne ñoom dañ ko ci bëgg a que boo déggee Sonko dox la système euh, li muy wax. waxul ko engagement mais engagement population bi la ni ñu c'est sëriñ si ci wàllu politique dafa ñaaw fi mu ne nii jox nañ leen bu élection yi passé fekkee Macky Sall moo gagné balaam fay joxeyaat xaalis mooy daf fay ñëw wala élection moo jot waaw loolu buñ dëkkee te xaalis boobu ñuy joxe xaalis population bi la suñ xaalis la ñun ñooy fay courant ñooy fay ndox c'est notre impôt hein loolu nag vraiment man. désolé mais damay wax ne euh, métti na yëf yi dafa demee côté soo déggee Ousmane Sonko di wax système bi ñoom président am na ñoo xam ne arrangé wu leen parce que li tax arrangé wu xam nga lu mel ni imam nga ñëw oote si yow téye imam de la mosquée de Medina Baye mais duwut ne Medina Baye yaa leen ilif ilifu ñu ki ñuy ilif sax tey mooy la mooy la xalif général de Medina Baye te joxewut benn ndigal mooy la kilifa gi mais ñoom léeg-léeg dañuy ñëw di influencer ci xelam essayé nañ ko nag trois fois même Maay Cissé dugg na foofu néegam karo bi ma ñëwee il a montré que sëñ bi ne ko ñii mais loolu loolu si boppam bi moom du ko mën a nangu du ko mën a nangu parce que li ko waral lii rek la mooy xam na ne xam na ne c'est pas logique je tax vraiment désolé mais euh, Sénégal il faut nous def parce qu'il y a beaucoup de choses qui xam ne ñu ngi manipuler ñu ngi manipuler opinion bi